kontaan naa ci victoire bi mais ba léegi amaguma satisfaction parce que des na benn match pour ñu mën ko ñu mën a qualifier donc euh, Diam Bougum daaw dafa dem phase nationale Thiès euh, c' était sa première participation mu dem ba quart de finale donc su fekkee ne am na chance de venir cette année ci ñëwaat encore war na gën am expérience donc waru ñëw ñibbi te yeggul minimum quart quart de finale bon on doit jouer samedi incha allah rabi. bon premier mi-temps bi tam aussi bon dañoo jóge ci défaite xale dañoo yàkkamti woon pour dugal donc wax naa leen ni ñu tey parce que dem bii dugal mooy su tey. donc après bi ñu demee ba comprendre si euh, lañ gën dal si lañ amee ñaari penalty après tamit ñu def ay combinaison parce que ñoom finalement amoon ñu mën a dugal troisième lañ mënuñu ñëw di am ay ambition yu dellu ginnaaw waxoon naa ko fi bi passé man j'aime pas la défaite mais lu bokk la ci football donc dañ koy accepter prendre ça avec philosophie euh, rectifier li tax ñu encaisser et defaruwaat je viens d'avoir le l'équipe en main dinaa jéem a xoolaat man laa mën a rectifier encore parce que loolu moo sax beneen visage bi deuxième mi-temps ñu gis ko parce je suis en train de voir certains joueurs mais noonu la histoire moo demee noonu tey da ngay gagné. manque de concentration rek xam nga ay erreur yu ndaw ci la bokk ci la bokk daal mais nañ ko rectifier waat j'espère que la prochaine fois dañuy tey. waaw nawetaan moo demee noonu man comme li leen wax bay passé man am na yoo xamante du ma ci dugg man je m'occupe de tout ce qui est li am ci terrain sama comportement joueur loolu mën naa ci wax mais supporter moom je pense <laughs> mën ñu leen gérer nañ leen bàyyi ak ni ñu mel mais voilà yëpp ci la bokk waaw ñoom dañuy gis ay frustration feneen mais man am ci terrain moom amal njëriñ euh, mooy football nañu def nañu ay erreur équipe adverse bi gagné na te mérité na tamit victoire bi mais day tax ñu gën a defar waat voilà waaw liggéey bi rek moo koy fay liggéey bi peut-être départ nañ sax naa ne am nañ un mois dañu joué départemental final gagné ko fii si terrain bi booy ñoom it am am am luñ bëggaat tey luñ bëggaat nag da ngay ànd ak ñoom si liggéey boobu ngay def ñoom mooy ñëpp koñ bi yëpp jàpp si ñëpp nekk si ñu nekk benn bit mooy lan nañ dem set lu ñu war a jëli te yaakaar naa li ñuy nañ ko chaque jour dama leen tant ñu liggéey di noppi li nga bëgg di nga koy am te nit boo si nekkee nag boo nekkee footballeur tey boo xoolee ay joueurs am talent ñoo fi nekk ay joueurs yoo xam ne ay deuxième division troisième division loo xam ne yow sa équipe ni nga bëggee mu footballé moom noonu lay doxee te yaakaar naa tey loolu la ñu indi pour bi ñu defoon premier match bi am na lu ci manqué woon mooy sérieux bi bañ a encaissé tey ñoom loolu la ñu indi ne war nañ mun a gagné match bi tey boo gisee seen seen li ñu ñëwee sax da xam ne ne ñoom victoire moo leen indi waaw loolu bu ma ko gisee sama équipe damay kontaan damay xam ne nii am na lu ñu bëgg léegi nag man it il faut que ma aider leen ci benn côté bi te ñuy bañ a xeeb équipe lu ñu mënee nañ lu ñu war a dugal nañ ko dugal tant que yaa ngi dugal yaa ngi gagné tant que yaa ngi def effort yaa ngi am victoire te lay xam naa ne loolu lañ def tey mooy ñu gën a góorgóorlu daal xaar lii di ñëw am nañ beneen match bi des ñu joué ko si ñu joué ko ni ñu ko war a joué comme ni ñu joué nii sérieux loolu moo ñu tax ñu dem suñu jëm. ngeen tëdd nelaw léegi quoi. non du tëdd nelaw am na adversaire yoo xam ne ñu ngi ñuy xaar tey dégg nañ ñaari victoire nga am am xam ne tey boo xoolee ñoom it ñu ngi xool yoon nga am ñu ngi si kaw ci dund yow da ngay liggéey lu sérieux rek pour ñoom nga xam ne ni am na ñu lay xaar pour gagner la man damay pour man il faut am ñoo xam ne dañ may bëgg a gagner man it il faut ma def plus effort pour mun a bañ ñoom ñu gagner mooy wax ne man victoire rek lay dund waaw.